mbokk yi ginnaaw inna lillahi wa inna ilayhi rajoxoon mbokk yi ci yàlla lañu ñu jóge te yàlla moomee suñu borom ca moom la ñuy dellu mbokk yi axlu làmb ñàkkati nañ kenn koo xamante ne Baay ku baax ku yaatu ku bëgg nit ku amoon relation ak mboolem kuy mbër nga bokk ak moom ikiri ak nga ñàkk a bokk ak moom écrit am na ak yow relation bu rafet mbokk yi kooku mooy Akon Tilala Akon Tilala nekkoon mbër nekk écrit wala école de lutte Père Balla Gaye nekkoon faak ay nawlem di yëngu ci làmb rawatina ci garde rapproché bi nga xamante ni ñu bari ràññee nañu ko mu nekk ci di ci def liggéey bu am solo waaye mu ànd ak jomam mu ànd ak ngoram mu ànd ak fullaam mu ànd ak faydaam mu soo koo dégg ci lu ñaaw wala lu ñu koy xeebee ginnaaw malaise boobu mu amee génn àdduna ñu ngi koy jaale ak lu làmb di ko jaale képp koo xamante ni mbëru làmb ga di ko jaale waa géeja waay gépp di ko jaale Balla Gaye di ko jaale alin Seye 2 mi nga xamante ne vraiment foo gisoon ay kon di nga ko gis ci wetam mu nekk ay xarit nekk ay doomu ndey waaye di ko jaale monument wu Géejawaay bi nga xamante ne mooy Lirou Diane di ko masawu di ko masawu képp koo xamante ni doomu Géejawaay nga waaye képp koo xamante ne ci axlu làmb nga bokk ñu ngi lay jaale ay kon ci laa la mbokk yi di wax ni nañ leen xoolaat. suñu dundin xam ne àdduna bi jeex na ba noppi mbokk yi ginnaaw bi nga xamante ne Moussa Balla gay génn na àdduna mbokki yi ginnaaw bi nga xamante ni Moussa Dioum génn na àdduna mbokk yi ay kon Tilala Fall génn na àdduna ñu ngi ñaan ay kon mii yàlla na ko yàlla yërëm te xare ko àjjana yàlla na dee fala naflaayam jëm yàlla na ko dàqal lool fi mu jóge yàlla na rëcc lu mu doon ñëwee ci àdduna yàlla na ko yàlla yëram xare ko ajjana di ko massaw di massaw njaboot gi mu fi bàyyi di njaboot di massaw famem di leen ñaanal fépp fu leen aykoon tolloon tegoon leen fa taxawu leen fa yàlla suñu borom mi nga xamante ne mooy taxawu yàlla na leen suñu borom taxawu fu kawe seen njort yàlla na leen yàlla defal jàmm yàlla may leen xolub muñ mbokk yi di leen jaajëfal di leen wax ni tiis boobu kat dal na ci monde làmb masa massa massa